dàqal ñu tawat ji ak fitna ji nekk ci réew mi su ko defee mbokk yi ñu di kàtt ak yéen ci yóbbalu bis bi comme niñ ko baaxoo defee ci waxtu wi rek di ko dellu di jëlewaat ci téere Serigne Souhaïbou Mbacké boobu nuy wooyee Qurratul bo bu fal bi te mu nekk ci page cent vingt trois ak cent vingt quatre su ko defee mbokk yi suba altine di dajeeg juróom benn fan ci aw diggi ci aw tabaski juróom benn fan ci aw tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer a ñeent fukk ak benn ca gàddaay ga maanaam 1441 hijriye di dajeeg 27 juillet 2020 su ko defee mbokk yi sëriñ bi dafay wax ni juróom benn fan bokk na ci bis yi nga xam ne baax nañoo jëfandikoo ndaxte fattuñu ndaxte tamit kenn du ko wattandikoo kon baax naa tàmbali dara mbaa ñu fas ci ab sey wala ñu yeggale ko ci wala ñu xaragone wala ñu wattu ci moom limu juróom benn fan bu dee jëmmi altine ji rek mbokk yi ndax sa lim bi baax na liñ ci gën a taamu mooy euh, watu ci ak daloo ci mbokk yi yal nañ yàlla fayal Serigne Souhaïbou Mbacké rahmatullah ali ngeen baal ñu àq ba subaak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa